nuyu di la dalal jàmm ci dëkk bi nga xam ne eh, jóge nga fa sori ñëw fi ngir xam li Serigne Touba ci réew mi xam moom cër bi mu am ci réew mi nee na loolu nag yëg na ko kon mi ngi lay ñaanal bu baax ci eh, masuwaliya bu réy bi nga xam ne moo tegu sow loos di jiite Sénégal suñ borom kattanal la defal la ci ndimbal ba yaakaar ji nit ñi am ci yow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 waaye jëpp yitte jumale te ju ne na nga xam ne lu ma bokk ak ñëpp lay doon tamaa ciy gën a néewle kon sëriñ bi foofu la ne ndax yàlla def na man seera laa ci ñi fi jëkk nekkoon fi di président bi fi bàyyi ko nekk na fi ba jóge fi sëriñ bi mës a dégg soxla su boppam lu mu ko wax rek lu jëm ci taalibe yi la yow mii fi toog itam man nga ko tàmbalee ci bis bii nga xam nga ko njëkk gis xam naa ne ba sama àndaay jeex doo dégg yitee boppam moo yite taalib yi rek loo defal taalib yi daal xamal ne defal nga ko loo defal dëkk suñu tubaab bi rek xamal defal nga ko